salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu ci barab bu tedd bii di jumaay tuuba taxaw nag ci liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma muy liggéey bi nga xam ne moom la sëriñ bi teg ci seen loxo te mooy taxawu jumaa ji ci saytu ko ak setal ko bu ñu wanee taxawu jumaa ji ak saytu ko ak setal ko nag dafa laaj ay jumtukaay dafa laaj mbooloo dafa laaj doole waaye nag dafa laaj jumtukaay yoo xam ne dafay méngoo ak liggéey boobu tax na nag tey ñu dalal fi nag mbooloom Serigne Touba moo xam ne ñoog daayira Muxaddamatul Xidma ñoo bokk pas-pas bokk it yëngutu liggéey bii leen Serigne bi dénk ñoom itam ñu gis ne war nañ cee tàbbal seen loxo ñu ko ñu ko daal def naka jekk nag tey ñu ñëwati feeñalati seen yéene ci liggéey boobu muy waa daairatu Kanzul Muhtadin bu Touba Istanbul ci réewum Turquie lañ bàyyi ko di mbokki taalibe yoo xam ne ni ma ko waxee léegi liggéey bii nga xam ne moom la daayira Muxaddamatul Xidma def la ñuy sori sori dañoo gëm ne ñoo ñoom ñoo ko bokk ndax li sëriñ bi diggee woon ci jumaa ji muy képp ku ci feeñ danga feeñ ba faw ku ci nëbb da nga nëbb ba faw looloo tax ñu bëgg cee feeñal seen yéene ngir bu ëllëgee muy seen seede ci kanamu sëriñ bi kon ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax mbooloo moomu nag euh, ñu ngi ni ma ko waxee léegi ñu ngi jógee réewum Turquie Touba Istanbul ci njiitul sëriñ Amdi Guèye jëwriñ ja waaye nag ñi nga xam ne ñoo ko fi teewal tey bokk na ci Serigne Naar Diop moom itam mi ngi teew ci jataay bi Serigne Ngagne Thioune euh, Serigne Moustapha Guèye ak Serigne Modou mbay ak Serigne Talla Loom ñooñu ñooy mbooloo mi nga xam ne tey ñoo ñëw fii. ñu ñëw nag ngir wone jëf joo xamante ni euh, jëf ju rëy la muy jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy setale jumaa ji lu jëm ci wàllu ay bale lu jëm ci wàllu ay raclette yi nga xam ne moom la ñuy pousser ndox mi waaye itam lu jëm ci ay produits yoo xamante ni yu efficace la yoo xam ne dana mën a setal karo yi jumaa ji ba mu leer nañ weex tàll xam nga ne nag Serigne Touba moom li gën lañ koy yët ñoom itam ñoo taxit bañ demee bay wut jumtukaay dañoo xool yëg gën yë gën a baax ñu tànn ko indil ko sëriñ bi kon ñu dalal leen jàmm damay jël kàddu gi rek jox ko sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno mi nga xam ne mooy wax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma mu dalal leen bu noppee ñu jox ñu jox leen ñoom ñi nga xamante ni ñoo jógee ca barab bi te indi jumtukaay ñoom itam ñu joxe seen kàddu wala ma njëkk leen jox ñoom waa daairatu Kanzul Muhtadin ñu joxe seen kàddu jébbale jumtukaay yi ñu indi bu ko defee ma jël kàddu gi delloo ko ci daayira Muxaddamatul Xidma jox ko waa commission sociale bi nga xam ne ak relation extérieure ñoo doon liggéey ak ñoom sëñ Abdou bu Bousso euh, maam Assa jiite ko mi ngi fi waaye sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno moom itam di jëwriñ ci commission boobu mi ngi fi lépp nag ci kilifteefu sëñ Abdou Lahad Bousso mu talib mi nga xam ne mooy secrétaire général bi kon ñu jox kàddu gi sëriñ euh, sëñ Gañ sëñ Gañ asalaamaaleykum mbokki jullit di mbokki taalibe yi ñu ngi leen jaar yépp te ñaanal sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak di jël ziyaare bi di ko lekk ci kilifa eh, jataay bi di sëñ Abdou Lahad Bousso ñu ngi ñëwee ci ndigalul jëwriñ Baye Amdi Gueye mu nekk Touba Istanbul xam ne moo jiite daayire mboolem daayire yi fa nekk yëpp muy ca Istanbul di ci Bursa di ci yéeni bus na na di Touba Antalya di Touba Jibisi ñu ànd di liggéeyal Serigne Touba ci jumaayam ji fas yéene lépp lu luñ gis Turquie muy njariñ te xam nga Turquie dina dëkk bi ëpp ay juma ci lislaam gi ci la bokk luñ fa xool rek mu doon njariñ bëgg nañ ko liggéeyal sañ tubaa ci jumaayam gii te di ci sàkkuk ñaan taalibe yëpp ànd na nag te xam ne liggéeyal sëñ Touba dong leen ñor fi mu toll nii Touba taalibe ñoo ko fa dajale indi ko fii li ko transporté ba indi ko fii ba euh, oto bi nga xam ne sax moo ko indi fii ban waxee dane at def na ko addee sëñ Touba kon liggéeyal sëñ Touba bi taalibe yi loolu rek ci ñaar kon daal taalibe yi daal ñu ngi sàkkuk ñaan te yéen waa Moukhaddamatoul Khidma ci ndigalal jëwriñ am di ñu ngi incha allah fas yéene ànd ak liggéey bi di déglu seeni i ndigal rek noo leen ko waxee rek incha ñu fas yéene ko jëf ci yéen loolu leen ci dënk rek bàyyi sëñ Abdou Naar moo sëñ Naar Diop moo fas yéene yeggal rek jërë ngeen jëf sëñ Naar bisimilah. salaatu wasalaamu bedadin maa fi ilmillahi aleyka wa ala alika ya rasulillahi aqisini serihan bisatillahi barakatu cheikhul xadim salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi mbokk jullit yi mbokk taalibe yi xanaa di jël nuyoo bi di ko tënk di jël nuyoo bi di ko di ko tënk rek di ko jox suñu jëwriñ yu baax yi nga xam ne ñoo leen fekk fii ñu joxal ñu ko ñu joxal ñu ko ci loxol sëriñ bi li sëñ bi wax nag sëñ Moustapha mi li mu wax rek daa daanaka na doy na sëkk des yi taftal ñaari kàddu rek ci loo xam ne bii ne dongo yi ñu ngi koy dagaan muy liggéey bi ñu indi fii te bëgg mu doon ay conteneur te yéen a jeeg pas-pas yi mi ngi fii kon buñ ñëwee fii ci jumaa ji liggéey bi nga xam ne bii nag amoon nañ pas-pas ak yéen indi ko fi fekk leen fi mi ngi mel ne fekk nañ fi sëriñ bi kon suñuy bëgg-bëggi bopp yi mooy suñu suñu suñu suñu yéene ci ci jumaa ji mooy lépp lu jumaa ji def rek lépp lu jumaa ji tiw rek ñu di ko def yéene yeeg pas-pas yaa ngi fi ay dongalan nag yoo xam ne bi dañoo nekk fee di yaxanu waaye nag fas ni yéene lépp lu sëriñ bi bëgg rek ñu daat cay def lan man kon na ngeen ñu na ngeen ñu eggale loolu ci sëriñ bi sëriñ bi ñaan nañu te xam ne ay tout tànk ñoo fa nekk yoo xam ne Sëriñ Tuubaa rekk leen am nañ ay jafe-jafe ñenn ña këyit yi am na jafe-jafe këyit ñenn ña fa nekk bëgg nañu ñibbi si waaye ñenn ñi am nañ jafe-jafe këyit ñun ñi nga xamante ne bii na tamit ña nga fa nekk ami këyit ñoom it ñëpp am nañ yéen liggéeyal Sëñ Tuubaa ñoom it këyit nan ko am ak i xéwal ak i teraanga yu ngi liggéeyal Sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen waa kay jërëjëf sëñ Ngañ ci kàddu yu rafet yooyu nga xam ne yëkkati na ko waaye itam kàddu yi nga xam ne sëñ Naar moom itam mottali na ko ci euh, muy kàddu yu am solo yoo xam ne mënutoon a ñàkk may fàttali ne ñoom nag seenub liggéey itam doonuñ rek ñoo xamante ni dañuy tañaxu di dem dañuy jokkoog daayira Muxaddamatul Xidma laaj lu ñu soxla nuñ ko soxlaa ak qualité ba nañ ko bëggee noona lañ koy noona lañ koy wutee jébbale ko noonu loolu itam di lu am solo loo xamante ni mat naa bàyyi xel doonuñ ñoo xam ne dañuy dem dajal rek ndax bu boobaa mën nañoo indi loo xam ne du méngoog barab bi wala du méngoog waaye ñoom defewuñ ko noonu dañuy laaj mu daayira bi lan lañ soxla ban qualité lañ soxla nuñ ko soxlaa noonu lañ koy jébbalee kon ma jël kàddu gi jébbal ko sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno mu wax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma may leen ñu jàll ñi ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy jëwri di borom liggéey bi te di leen nuyu it ci turu Serigne bu Bousso mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma ak ci turu Serigne Abdoul bu Bousso mi nga xam ne mooy secrétaire général bi ni ko Serigne Ablaye waxee léegi ak Serigne Abdoul Ahad Maam Asta mi jiite commission sociale ak Serigne Ablaye mi doon wax léegi moom it di ancien secrétaire ak Serigne Fallou mi nga xam ne moo jiite commission organisation ñu ñëw dalal leen ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ak mbooleem dañuy nekk ci dayre bi te nekk ci jumaa ji di liggéey euh, sëriñ Ngagne Thioune ñu ngi lay nuyu di nuyu tamit si jëwriñ yi nga àndal yëpp di jël nuyoo boobu di ko teg ci sa loxo nga jàllale ko ci loxol sëriñ am liggéey mi nga xam ne mooy jëwriñu daayira Kansul Muxtadin bu tubaa Istanbul ca Turc ak mboolem dëkk yi nga xam ne ñoo aju ci yenn ñu ngi leen di nuyu ci turu daayira bi di leen ndokkeel te di leen dalal di yëkkati ay kàddu yi cant yoo xam ne cant gi eh, dañ koy jël ngir partager ko ak yéen waaye xam nañ ne ñun ak yéen ñoo ko bokk ndax liggéey bi Sëñ Tuubaa boo xam ne gënuñ leen cee ñëpp ay taalibe Sëñ Tuubaa ñoo xam ne dañ leen a wuutu fii ngeen nekkal ñu foofu kon nag su ngeen gisee ne da ngeen nekk ci dëkk booba di di di di Istanbul di Turc bokk ci dëkk yi gën a ràññiku ci lislaam ci wàllu tabax juma ak man xam niñ koy defee nga xam ne seen xam-xam dana màcc ci lu koy setal ak lu koy xayal ngeen xam loolu tax saa su nekk ngeen xool matériel ya gën ngeen jënd ko ngir indi ko ci jumaay Sëriñ Tuubaa ji ngir teg ko ci loxol daayira Moukhaddamatoul Khidma ngir ñu koy setale karo yi ak tapp loolu liggéey bu kawe la ñaan gi nga xam ne wax nga ko ak yi tawat yi nga xam ne jooytu nga ko jàpp naa ne borom dégg na ko ndax lu gën a foor euh, waxtu wu nekk saa suñ jëlee ak bale di setal jumaa ji mu leer na ne yaa ngi ca Istanbul wala yaa ngi yaa ngi ci dëkk yi nekk Turquie waaye sa sa dërëm dem na ci li ñuy setale jumaa yi Sëriñ Tuubaa ji loola jàpp naa ne doy na sëkk nangu ñaan kon képp koo xam ne daal bokk nga ci liggéey bii wala nga nekk fa te te fas ci yéene bokk ñi ci bokk nañ la fasaaleel jëpp ajo ji ñu am rek suñu borom faj ko ni ko sëñ Ablaye waxee léegi noonu la demee suñu am liggéey dafay jokkoo laaj lan moo màng ci màng say bi nga xam ne dañuy consulter sëñ Fallou Mbacké mais mu defal ko audio identifier ko jumtuwaay yi ñu gën a soxla. ne ko bale moom na ci bari lu mën a xew te na bant bi gudd jàpp naa ne loolu bàyyi ngeen ko xel ndax bant bi moom euh, gars yi nga xam ne moom euh, nekkoon nañ ci équipe yi bale tàpp yi ak yi milaas xam nañ ne ngeen ji bant ngeen andi ngeen ji bale it ngeen indi dana tax boo sànnee bale gi mu dem fu sori mën a bale bu baax a baax loolu nag moom alhamdulilahi rabbil alamin ndax sëñ Tuubaa buñ koy indil dañ koy indil la gën waxuma dara waaye produit yi nga xam ne tey mooy produit yi gën ci ci marbu nga xam ne tey boo ko ci nettoyé du xàll lu def dara nga xam ne benn bidon bii daanaka mën naa produit lu man ñetti bërigo loolu tamit lu kawe njort la wax dëgg kon ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen ci gërëm di ñaan suñu borom defal ñu ci liñ ci yéene su Sëriñ Tuubaa fayal ñu boppam te ñu bañ cee gis suñ bopp tam nangu liggéey bi te defal ñu tawféex ak taysiir te ngeen yàgg ñëw ñu yàgg ànd liggéey bi sëriñ bi yàgg ñoo nangul di barakati xaadim rasul nekk naa kàddu yooyu rek mu doon kàddu yi cant yi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaw kay kon mbokk yi gis ngeen jotaay bi ni ko suñu Abdou Lahad Bousso Thierno leerale ci turu daayira Muxaddamatul Xidma te ci njiitul secrétaire général suñu Abdou bu Bousso mu talib kaddu yi leer na kon niñ leen niñ leen ko wax rek na seen xel dal ndax fii moom eh, képp ku sa mbir nërte yewen sa sa dërëm du fi dugg ñi fi ñi fi seenu seen alal di dugg seenu ñàkk di dugg sëñ bi da leen di tànnal boppam xanaa kay di soññu seen mbokki taalibe yi ngeen nekkandool foofa ñu gën a góorgóorlu xam ne mboolem lu ngeen tegoon ci seen loxo tam jëm si jumaay Touba agsi na lii mooy firnde li kon nag nañ gën a takkaat seen laxasaay ku ci doon def na gën a yokk jëfam waaye ku ci bokkugutoon itam na ci bokk te xam ne bokk ci tawfeex la loolu rek lañ ci doon dolli kon ñu ngi leen di sant baax baax di leen gërëm ñu jox sëñ Abdou Lahad Bousso mu talib rek mu def ñaan lana